lislaam mooy dëgg jàpp yàlla tudd turam yàlla jàpp ci daam mooy dëgg jàpp yàlla tudd turam mooy dëgg tudd yàlla borom tuba di tudd tur wa màgg naa mooy dëgg tudd yàlla mboon ma àgg naa ku bëgg a sell del si turam wi si kasiiran tey xalam melom wi di ko kar fi sigri wa tafakkuri ku ko saxoo naa ni dootu la sori walliyu kaamil moo dey turam wi ma di ko sikkar ba meloom wi gis naa jëmmam ja wax ja wax ko moomit lam ma wax ma yëg ko du tee ma naa ko namm naa la borom Tuubaa yaakaar ji bëgg naa la waaye du ko namm naa la du tee ma naa ko yaakaar ji bëgg naa la xam nga ni man jooy cofeel ca la saxa sa xol di jooy sa bët di tooy te yaa taxa dee leen si kar turam bi yëg leeram gi buy wutu jullu lay xamal ne xam gi te ma wax ak a soreek ay njortu bokkul yaqiinu laa borom Tuuba amul morom borom Tuuba